ginnaaw ba ñu jëndee ci lu toll ci juróom benn fukki poubelle yoo xam ne ni ñi ngi ko séddale ci xoromub jumaay Touba daayira bi di xidmatul xadim di jóg guddi ajjuma gu nekk di setal li nga xam ne ni moom moo wër jumaa ju sell ji seen ñaareelub jéego nag ñu ngi ko def ci oto mbalit boo xamante ne nii day boole bale tonni ak tuuri loolu li nag nekk loo xamante ni day yombal seenub liggéey ginnaaw ba ñu fàggandikoo ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom nekk ci bitim réew boobule oto nag ci lañ ñëw ci xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou ko jébbal liggéey boobule Abdou Lahad xam ne moom moo topp président daayira xidmatul xaddim di liggéey bi ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa fii ci bitib jumaa ji di waa daayira xidmatul xaddim bi nga xam ne mooy balee li wër bitib juma ji guddik ajuma gune li ko tàmbalee miin wi euh, ba fajar euh, ci guddik ajuma gune ñoo ñëwoon tey jii euh, ci kilifa ko tedd gu baax gi Cheikh Mamadou Mountakha Bachir afisowalla waraa ci liggéey boo xam ne nii am na ci liggéey bi dolli ko na ci liggéey bi ñëwoon tey doon ko ko gaaral ba suñ borom def na ñëw nañ ba mu teg ci bëtam gis ko ba ñaan ci sant ci loolu gërëm moom ñu ñëwoon nag eh, di ko leerlaan mbokki taalibe yëpp ginnaaw bi nga xam ne ay liggéey yu bëree bëri jàll nañ ko suñ ginnaaw liggéey bi nag eh, ci anam gi ñu koy defee mooy anamuk setal li nga xam ne moo wër bitib jumaa ji ci kañ ci guddi juma gune mboolem li wër bitib jumaa ji doon ko wër bale ko ba set eh, toon ni ko lool nag ay at yu bëree ngi nii ñu koy def lu mat juróom-ñaari at ba juróom at ci ren yoo xam ngenn guddi guñu ñuy jëlal amut ci guddi alxamis goo xam ne duñ ñëw bale li war bitub jumaa ji waaye taxul ñu yem ci loolu ndax mbooloo lañ te dañoo bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa tax na ñuy jël seen alal li ñu am di ko dajale di ko def ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi. bu ñu sukk sukkandikoo ci kàddu vice président xidmatul xadim bile oto bile ñu ngi ko daal di fàggandikoo ci ay koppar ci lu toll ci juróomi million ñu teg ci koppar yi CFA loolu lee nag Abdou Lahad Ndiaye di fësal ne seen yéene ëpp na lool ndaxte ñi ngi mëbër yeneen i liggéey yoo xam ne nii fas yéene nañu koo def lépp ñu daal koy duggalaat ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te dañoo bëgg a liggéeyal Sëriñ na ñuy jël seen alal li ñu am di ko dajale di ko def ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi looloo waral mboolem luy nuru bale wala bureet wala tonnukaay dañuy dajale seen addiye dajale seen alal di ko defal Sëriñ Tuubaa ci biir liggéey boobu di ko wuti ay matuwaay dem na sax ba tax na yemuñ ci loolu ngir bëgg loolu jàppandi ñu wut ay tool di ko bay di ko bayal Sëriñ Tuubaa fii ci Kellal Jóob ngir lépp lu ci génne ñu mën koo delloowaat ci liggéey Sëriñ Tuubaa boobu ci ab fàttali daayira xidmatul xadim ñi ngi ko sos boobaak léegi ay at la ay ndaw la yoo xam dañoo jóg guddi juma gu nekk ñu daal di fas yéenee jóg boole seen doole daal di sal lépp li nga xam ne ni wër na jumaa ju sell ji ci Touba boobaak léegi nag suñu boroom a ngi leen di dimbali leen tawféexal seeni tànk jëmul benn yoon ginnaaw kanam la jëm